aus billahi min asheytaani bismillahi rahmani rahim aw na ko yaa muin wa bika nastainu alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaam ala man la nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñuy siyaar suñu mbokk jullit yi suñu am di jàmm yi di siyaar suñu kilifa yi di baalu ak réew mépp ci julli gi nga xam ne moom lañu weesu di leen ndokkeel di leen sargal di am mbégte tey ci télévision Tektal TV bi nga xam ne moo wërgal këpp àdduna ñëw tey kon ni ñu koy faral di defee am daan dina dalal ay gan yu mag waaye gan guñ mës a teral tey ñu xam ne tey gan gii gan gën koo màgg ndaxte bi ñàkk yéen ñi nga xam ne yéen laay waxal ngeen mësoon ko dégg muy lu yàggoon ca Liberté 6 ñu naan ko góor gi Mawlud ñu ñun xale yi daan ko tuddee Pape Mawlud faal kon moom lañ am mbégte gannaaw bi nga xam ne tukki woon nañ ay at yu bari ñibbisi biñ ko laajee ñu ne ñu ngi Grand ñu ñëw féddaliwaat kóllëre ga nga xam ne ñun ba ñuy nekk gone nekk lu ndaw amaguñu sax jóom ñaari at mu ñuy faj te defe naa man ak samay junni junni morom mës na leen a faj ay gaañu gaañu yoo xam ne moo xam ay rëq moo xam lu ne ci mosulaa laaj dërëm loolu nag mu nekk mbégte goo xam ne dañoo ñëw tey seet si ko ànd ak fii télé télévision Tektal TV fekk fi ay njabootam ak ay soxnaam ak ay mbokkam ngir feeñal Ah, loolu nga xam ne daana ko def ñu bëgg a wax àdduna bi suñu xarit yi nga xam ne ñoo nekk États-Unis ñu nekk France ñu nekk itali góor gi Mawlud Fall yi nii yéen ñi ma ko doon laaj ñoom Cheikh Diop ñoom Youssou Diop ku ci nekk am na fu mu jaar ak yow kon kooku defe naa li tubaab naan patrimoine national tey jii Sénégal yaakaar naa kuy faj Dantec wala dalal jàmm wala hôpital principal boo jaaxlee la ngay faj moom moom defe naa dina ci wan yoon bi kon boog alhamdulilah rabbil alamin dañuy bañ a guddal ay mbokkam mi ngi toog ni sëñ Omar Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu nuyu bu amul ak yal na yàlla fay leen yal na yàlla yokk seen i cër ak seen i wér def ngeen loo xam ne loolu lu rëy la. fàtte woon naa ko man. dëgg la. yéen a ko jëlaat sa suuf. Mhm. yëkkati ko. booy jàllale loolu. macha allah. yal na yàlla fay leen. amiin yaa rabbal aalamiin. yal na yàlla fay leen. amiin yaa rabbal aalamiin. nii ma kontaanee tey. Mhm. yàlla rek a ko xam. amiin yaa rabbal aalamiin. baax. alhamdulilah parce que dee foo naa am pare man ndax sama dee rek lii dafa def bëri loolu kenn du ko dégg ndeysaan dëgg la waaye alhamdulilahi alamin mm, bu ngeen ko génnee dëgg la yal na def ngeen yëfi mag dëgg man ne def ngeen yëfi mag te jiw ji ngeen mm. mag la dëgg la dëgg la nag yal na yàlla fay leen dëgg la Ah, ah, ah, ah jërëjëf jërëjëf gis ngeen kon ni ngeen ko gisee loolu mu mel ne émotion ñun defuñu lu dul suñu waagal ndax wama shahid naa illa na alim naa hmm. man mii di wax ak yow sama yaram bi jàpp dama daan football lëjoon loolu fu ne gaañu naa ko waaye bu ma mësaan ñëw bu lay laaj naka waa kër gaak rek faj na la ca doo ko yëpp ca tey jii ni gis ngeen fajaatekat ak naxaatekat yi ni ñu bàyyee kon loolu ci lañu moom la ñuy duggal moom ci waxtaan bi njëkk nuyoo tamit doomam ji nga xam ne moo fi mooy wax ci kàddu famille bi xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu jël comme xëy na timis bi jege na dañuy njëkkanteeg waxtu wi waaye dinañ ko laaj moom kañ la tàmbalee faj ak ak ak ak ay ci ay li mu fekkee bu njëkk ba faj bu njëkk ba ak li mu ni mu wutee ak léegi ni naxaatikat yi bare ak wax dëgg yàlla naka la gisee senegal démb ak tey ak wax dëgg yàlla lépp loo xam ne dinañ ko mën a baaxee rek dinañ ci dugg ak moom incha allah rabbi sama sëriñ kon ñu bàyyi la nga nuyoo yow mhm. waaw kon asalaamaaleykum Tektal TV. Mhm. wax dëgg yàlla li ngeen def. Mhm. def ngeen lu rëy. def ngeen loo xam ni. ah borom xalaat a koy def. tey lu am solo la. ndax li góor gi wax tey. yaakaaru demoon na nag lu fi taal temps yoo xam ne yow laay defoon nañ duñ ko fekk. mais nag yàlla bu naree baaxal. day baaxal bu naree rafetal day rafetal mm-hmm. te rafetalu yàlla moo tax ngeen ñëw fekk ko fi fekk ko mu ànd ak xelam mm-hmm. eh, di wax ngeen di ngeen di jël mm-hmm. li nga wax nag lii nga xam ne moom moom lay liggéey eh, doolu xam ne daf ko faraatu daf ko doon ne sa cosaanam si ay juróom la ko jël sa waalo sa dëkk bu ñuy wax jàgg ma waajuram bu góor mi ngi tudd Mor Fall way juróom bu jigéen mu ngi tudd Seyna bu ñu sa jag la kon ñëpp xam nañu ko koo wax ci wàllu xam na ko lu mu foraatu lu mu donn la ci way juróom hmm. yàlla may ko si nag may boo xam ne leer na Sénégal yëpp hmm. kon ñi ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ni hmm. di ngeen déplacé uniquement pour loolu te it am naa yu waroon jël ko ndax yàgg na fi te feeñ na yéen ngeen am gëstu boobu di gëstu ba ñëw fekk ko fi jaarale moom jaar fu mu waroon jaar ngeen jaarale ko fa dëgg yàlla muy ñu leen fay ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla yokk seen télé bii eh, yéen li ngeen di yëngatu yal na yàlla def ci barke parce que yéen nit ñu baax ngeen nit ku baax mooy fàttaliku démb loo xam ni mm. eh, ba muy xale bu tuuti tuut tànk la woon mm. mënoon ngeen ko fàtte mais ngeen di ko gëstu ba ñëw fekkaat ko ci këram la may leen ngeen fekk ci kon yéen kenn mënu leen fekk bi nag ñëpp a ngi toog man may kii toog mhm. man na wax ni moom juru ko si gañu waaye moo ko jur ndax moom la def taaw mooy Abdou Sour mi toog ñoo jàkkaarloo këram moom kër bi nga jàkkaarloo léppam ci moom la ko teg mu topp ci gannaawam mhm. kee mooy taawam bu góor mhm. ñuy soxnaam kii soxnaam la. ak euh, ay goroom a ngi noonu. doomam yu góor ñëpp a ngi fi. macha allah kontaan nañ ci yow daal. pour bañ a guddal comme li nga wax. Mm-hmm. en tout cas foofu laay yemandi ba nga am si leneen loo bëgg a laaj waaye lépp loo bëgg a laaj. Mm-hmm. incha allah kontaan nañ ci pour leeral la ko moom leer naa ñu incha allah. macha allah jërëjëf macha allah. jëf comme ni ko sëñ Amar Fall waxee di taaw ci góor gi muy lu rafet comme ni ngeen ko gisee ay njabootam ay dëkkandoom a ngi nii góor gi ku ko xam Sénégal yëpp ay mbokkam la def naa keroog bi ma ñëwee ci maa ami Diagne ne ko man de bi ma gisee góor bi sama xol dafa sedd mu ne Abbas gaawal gaaw ñu yóbbu fa daaw balaa tabaski kon loolu moo tax sax bokk na si li gën a tax ñu ñëwaat si ndax suñu ket boobu ñu tàmbaloon dañ ko arrêté ndax góor gi tey bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ état bi da ko waroon di am salaire fin du mois chaque weer ñu tabaxal ko ay étage ndax lu ne def na ko ci nit ndax yàlla bu ne wala xat karam naa ba ne aadama on a élevé l'être humain et on les a préférés si beaucoup de de choses defe naa kon ca moom li yàlla yëkkati moom moo doon tax kooku am wéew kon kenn amul fayal mm-hmm. waaw kon dañ lay bàyyi góor gi nga dugg tuuti ci waxtaan nga fàttali ñu démb ci wàllu ci wàllu paj yàgge ci wàllu faj mm-hmm. foofu nga faj nga fàttali ñu waaw nga ñu tuuti démb ci wàllu paj euh, jafe-jafe yi nga ci doon am ak maanaam mun dikkee ci yow loo doon say maam la ak euh, yan yan yan jafe-jafe daal nga ci nga ci daan am alhamdulilahi rabbil alamin faj bi dafa duggul duggul mel lu baax sama na sama baay moom oo oh. li ma doon génn fukk ren ren weer wii nu weer man sa yem te bu doo doo doo boo demee ngay bindal ma bindal ma bindal ma bindal ba tabaarkal naa ko mu bind yëpp yi bind yëpp jox ma ma am def sama poos quatre 83 laa départ sa ñaan si ñaanam. 83 ca Waalo. waaw fii fii Liberté 6. Mm-hmm. Liberté 6 bu mu nekk fa kenn boobu kenn du fa nekk man rek. ba yàlla mm-hmm. ah, wax dëgg yàlla. Mm-hmm. méttoon na lool bu ku ñëw ñëw si ku ñëw déy ma mu rus ñaanal rek bàyyi ku ñëw wax ma mu rus rek ah dama lay damay ñaanal rek lu ma laaj tin dëgg waaw ndeysaan alhamdulilah rabbil bu mu bu mu bu nga xam ne dëgg na dëgg naa dëgg dëgg dëgg bu ñu yónnee mu ñëwee ñëwee góor gaa nga ne bëgg ma nga ne sa woto façon la toog ñu fële fële fële lu yem ñi mu ne góor gi ne daf nga xam <laughs> ñii yëpp nañu ñii yëpp nañu ma ñii yëpp mën na ñi yaakaar nañu mën na ñii yaakaar nañu mën na ma dara ndax booba dama dem dellu si dem dellu si dem dellu si rek tegu si benn parab waaye bi ma bi ma xam nañu ñaan lan la. ñaan lan la la. suratu wal qur'aan ak kii nekk la muy mu sale la siraatul mustaqim mm-hmm. te lu ko ñaanal. Mm-hmm. wala alxuraan la wax de. Mm-hmm. loo si ñaan. dugal si fa siraatul loolu doo dugal si yow. kon góor góor gi buñ la déggee dafay mel ni kon yow li su ëpp ci li nga doon ñaan di ko fajal ci alxuraan ngay sukkandiku. tuure ma teg alxuraan dama ñaan dama ñaan faata xuloo si bede falax xuloo si bede be naas ñetta pii ñetta pii ñetti xuloo laa war laa war woon juróom-ñeent dana ko jogal den ñetti xuloo laaw ñetti xuloo si bede falax ñetti xuloo be naas mu ne ko de mu ne ko ah, kii du téye gona a jogal dem lima may jàngate ma ne ku fañ ngay indi sa doom toog ñetti ñetti fàllate ñetti naase ñetti xulalaaw nga juróom ñeent loolu bu doo ko jàngale gone boo ko jàngale boo doon léegi boo ko lay jàngale sama nee ko ta gone da da ma dem macha boo jege ne jéem na ànd ak sa borom kër mu téye la nga tamit ne dafa tey nga dugg surtout yaasin ba sa salaamun xawlan min rabbin rahiim nga duggantu foofu misi liifra min sala kitaab la rabbi fii oddanen mo taqen la si yowmal xawi yoqama saat warasna yonfi ma unsila ika ma unsila min xablu ulaa'ika ala wadan min rabbin ulaa'ika umul muflihuun ma sha Allah fu ma ko jeexale na jogal yow les pare pare moo di yaa dund bu baax wala dee léegi mu dem dellu si dem dellu si dem dellu si mu bàyyeeg yàlla dootoo mu si def dara man xaw ma xaw ma xaw ma jàngu yeneen yi tëbli ah. man xaw ma yooyu ah, alxuraan rek laa xam jërëjëf xam naa comme ni mu ko waxee rek comme ni ngeen ko gisee loolu muy wax nit ñii nee naa leen magum jëmm tey jii xanaa sax ñeent fukki at teg na te ba may ba may faj aw ma fukki at yu ma juróom yu mat comme li muy wax seede naa ci nee naa léeg-léeg boo ci demee maa ngi koy wax sama yaay ma ajawat ma ne ko sama ndig ndig dënn bii mës naa yëkkati paan boo xam ne xanaa mat na 200 kilos sama dënn bi daf mel ne lu xaal waaye bi mu ci tegee loxo ba dem ak moom keroog laa ko mujjee yëg loolu ay exemple yu lu jeex la comme yéen ñii duñu seetaan comme ni ma ko waxee sànq waa Liberté 6 waa ñaawi tali waa xaw yàlla waa juboo waa Castor waa Derklé góor gaa ngi nii Dakar yëpp Sénégal yëpp ñoo ko amee njukkal nee naa patrimoine national la ñun ñii de moom ak ay ay rakkam ñoom Pape Ablaye Gaye ñoom sëñ Modou Fall waalo waalo yooyu ñoo ñu yar waaye ku xam waalo waalo xam ni leen yàlla may ci yax ak moccak yooyu moom comme moom rawatina buñ demee tey jii ba àdduna bi jaxasoo nga xam ne ñi ñi ñuy tuddee kat yi nga xam ne kenn xamul ay sunguf ak dañuy dugg ci loo xam ne xamuñu ko man defe naa ku ma dem bu ma la seetloo rek damay fàttaliku moom mu daan def man dem ci ñaari minutes la dinaa la mën a wax ndax mën nga wala mënoo kon boog nii nii ñu ngi lancé appel bi ñun waa Tektal TV te dinañ ko jàllale ci ASC yëpp góor gi mérité ay milliards kon boog loolu loolu daal lañ ñëwoon di leen kon leeral xam naa kon góor gi dañ lay bàyyi rek nga dugalaatal ñu ci euh, pajum démb ak pajum tey maanaam looy looy looy dig nit ñi ñu gën a gëm yàlla delluwaat ci taw tawhid gi di faj ci alxuraan wala loo looy wax ci pajum démb ak pajum tey. li ma li ma la xam li ma xam si faj si faj alxuraan waaw dama si xam dama si xam laa moom faj alxuraan songal lii mu dem nga songale mu dem. wala nga songale mu ta nga songale nga ta nga ba fa loolu jëlaat si leen si kii songal ko ko waaye doo jàng kii jàng kii nii lii moo ko faj nga ñaan ko mu dem nga sant yàlla mu ñaan nga nga jëlaat beneen ko songa ko nu ko acca man man loolu laa xam si sa ñaan waaye jàpp benn rek lii rek lii nangam nangam rek ci alxuraan boo ko defee daf góore dafay soof sax dem da ngaa yëkkati mu dem xooloo sa mbére falax xooloo sa mbére ba naasi xooloo laaw oro laaw bu ñu juróom-ñeenti ëf lu lu yëg lu yëg ñaan yooyu si juróom-ñeenti yooyu ñetti xolaa laaw ñetti xoloo sa falax ñetti xoloo ba naasi loolu si ñaan di ko ñaanal mu dem wallaahi waaye lu si dugg rek yàq ko li ko mu jëpp mu gë boot doo mu indi boot dem mu jàpp ko mu indi nga ñaanal ko yooyu bu jël am na yeneen ni ko ñaanal yeneen ngeen ko ñaanal la wan sallallahu alaihi qur'an ala jabal la ra'aytu khasam tasin khas li fala mim sat kataba la alam na sala lak raka du jeex loolu lu ñu sunu sunu ni nga mën lii la ñaan nangam la dafa doon dafa ne dafa def nii ba dara nga jàngal ko loola. waaw nga ñaan ba si yàgg mu mel ne léeg-léeg day toll foo xam dootoo jàng alxuraan da ngay mel ne luy jat loolu secret waalo waalo yëpp la kooku si kooku si dama dama la dama dama dama. dama dama loxo. sama loxo dafa dama loxo dafa waaye bu dee ñëwal rek lii man jaa jàpp nga dugg. dama ah, dama ak faxat la def. jàpp waaw dama yooyu damma damma waaw loola la am loola loolu lay am faxaj loola lay am waaye bu dee da nga ñëw rek di songa nga nii day def nii di beneen nii te nga jàngoon seen ياسين والقرآن الحكيم إنك لمرسل إلى صراط مستقيم تنزل لتنزل قوما ما أنزل لقد أغوينا جعلنا في أخوان فرعون دق دق دق دق وتسرب الخلق من رب الرحيم والذي خلق السماوات والأرض بقدر ولا أن يخلق مثله بل هو خلق وإنما إنما أمره إذا أراد شيء كن فيكون جوكل ما شاء الله ما شاء الله كوكولا سار وخمسة القرآن baqara baqara xoloo sa beneen naase baqara si xoloo naase yaa seen si gën a jàng si gën a jàng si alxuraan dama ne baqara bu xoloo sa beneen naase yaa seen wal xuraan ak kibir mu si gën a jàng parce que kon yaa seen mooy xolu alxuraan mooy xolu am na xolo moom it am na xolal xol xolam mooy lan. <laughs> salaamun xawlan min rabbin rahim. est-ce que macha allah. salaamun xawlan min rabbin rahim. salaamun xawlan min rabbin rahim. solo xol yaasi na ko. yaasi na mooy boolu xoolu alxuraan. est-ce que macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf suñu góor gi ñun daal comme ni nga ko waxee mbégte bi àndal tey. comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi après Baye Mass dina leen jëlal mbokk yi ñuy seetaan njaboot gi. ñëpp tey jotaay bi nawoon na ëpp lii ndax dañ koo waaj ay yoon. mais du ñàkk xëy na dañ koy def ay programmation mën a ñëwaat yeneen yoon ndax ñoom maa ami Diagne waa Liberté 6 maa ami keroog bi mu koy génn nee naa leen nee na moom képp ku xam rek dana la sonal waaw képp ku mu xam dana la sonal ndax góor gi dañu koo jaaral ndax xëy na sax famille am ñoo ñoo moo leen meññ waaye ñun daf dañ koo daf ñoo jege ndax danaan toog bi yéen toog ñun ba ngoon te loolu yàgg na ëpp na 27 ans waaw kon maam maam ami maam ami noo noo gën a kër si man la yaroo waaw génn si biti kër gi rek si biti ñëw si man génn si man dugg si kër papam gi yëpp bu amee ndanu añ wala wala wala njaganal ko si néeg bi yaañ bu mosee am njogoon añ bu añ boo xam ne ba nga fa si biir néeg la koy ne maanaam moom doo ko baax la bokkul ak genn xam naa foofu deux deux ñaar fukki at. vingt ans Liberté 6 waaw. cinquante ans ba soixante deux. vingt deux ans. fa jokk woon ah. dem fànk. Ah, donc kon li may wax ak yéen. waaye nga génn ci këram dugg ci dugg sama place mu génn ci këram dugg ci këram. mu wutee dem dafa doon dem ma dafa doon dem jumaa ah. moo yore woon jumaa ja boo jullee ana yow mu dugg kër ma dugg dugg sama kër benn jom du yaa wax wala yaa def ba ma nekk foofa ba ni ma ma wax lii wala yaa ma def lii kon jërëjëf bu ba loolu am. jërëjëf jërëjëf comme ni ko euh, mbokk yi yëpp gisee rek émotion bi moo koy jàpp góor gi nee naa 22 ans yi mu dund Liberté 6 ak ñun defe naa boobu ñun ñi sax la gënoon dëkkal ko Grand Médine gii mu dëkkoon ndax liñ ko daan gis moo ëppoon. kon boog dégg ngeen fa mu wax la tubaab naan fidélité kenn mus ko dégg yaa def lii wala yaa wax lii foofu daal bu mu mësaan ñoom mbaa moomu. mbaalu tawféex mooy salaamul xawlan min wax rahiim lan nga fay dégg. Hmm. salaamun kon alhamdulilah. ñëpp amel nañ ko njukkal xam naa liñ bëgg a wax yëpp. du fi xaj surtout gaa ngi jot. Hmm. waaye dañuy bàyyi sëñ Omar Fall yokk yokk yeneen kàddu. Hmm. bu ko defee ñu dem tamit ci ay soxnaam wala mbokkam yi ku ci bëgg a def témoignage. ñu xam ne daal lii yëpp daal ay ay ay doom yoo xam ne moom moo leen doomoo. ñu fàttali ko démb ko delloo njukkal. moo indi tànk yi. waaw incha allah rabbi kon xam naa dañuy xool rek bàyyi. isin boo boo boo boo dégage mi nit ñi. waaw. deux fois waaw deux fois waaw. yóbbu ni ni dina dem ba de nit ñu bare bare lool nit. yow noo kii yow yow yow de yow mi te yow yow yaa fi des. dëkk garab yi de garab yi ñëpp ñëw. Mm-hmm. ni kii da du fi yàq bilaay kii da fi yàq de. Mm-hmm. garab yi géej yi jege kenn du fi yàq. Mm-hmm. dañu ma bàyyi de. ñu dem si usine si ñaari ta si ñaari étage yi ñu si eh, eh, maire maire bi àndal ak moom mu dem si moom si si fee nga jënd jënd ay birig tabaxal foofu mu nekk foofu liggéey foofu parce que yonente bi ma ne ko man maa man maa bañ loolu de man maa bañ loolu ma ne ko loolu daal moom bàyyi ma dem bi sama kër sama gar jóge waaw macha allah xam naa léegi balaa may dugal suñu Omar sax dafa am laaj boo xam ne bëgguma mu rëcc ma naka lañ mën a def ñun ëllëg ba nga xam ne yéen xeetu xam-xam yi leen yàlla jàngaloon ci xa ci faj ñu mën a fexe ba mu des lu demee nekk sa njaboot ndax xam yeneen ti meññantal wala naka la état bi yow sentir nga état bi def na dara ci nit ñu mel ne que ñeen ñu mel ne que yéen waaw xam nga kii ku ko bëgg fa fa fa jàngal ma soo ko indi de ñii dañuy dañuy bay déedéet laaj waaye ko laajul doo doo sabara doo sabara la waaye waaye li noo nangam dañu ko def nangam dañu ko def mu ne nangam ngay def nangam da nga jëkk nangam def ko nangam dégg si teg si nangam teg si nangam looloo fajo bu ma liggéeyee kon ko lii nag lii di kenn kam boobu nga <coughs> am na yoo xam ne man dama bind ña benn ñaari bind rek wala ñetti bind jàng ba xam ko nii ko mu naa ko fotakum sum sun baax sun ma def su nem te xam te na xam te wal bet besax sii comme ça comme fotakum fotakum tànk link jatang limi limi soye digee digee digee comment digee kulle kan yooyu da nga koo ba pare amee ko moom di ko di ko fooye ci àll bi di ko da ko fooye da la wona seykum sakom fata kom fata fata kom fat tank linka jatan limi ɗimi soya heɗɗi gay dig bo komo koy si kel kanay ɓerela ɗi ko sindi ɗako ɗa bon ngem mbalañu yere du dox omo ñi juɗo koñu yi at mu juɗo la commencé jël la commencé jàng sama moom sama baay dama ko wax wax moom wax moom ba bind rek wax moom ba bind rek dama bind dafa wax ma bind di bind bind bay ne xanaa bay ne yi nu bàyyi ba beneen saak laa kii laa pag pag alxuraan laa si jëfoon bu mu fees dugal si sama walees fii si Ndakaaru laa ñëw di ba yegg see ñëw sama ñu sama sama lakk ma ba yeex sama waaye man la ma yëngu yëpp ma doon naa ko yàq. est ce que est ce que <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf loolu euh, jërëjëf xam naa comme ni ñu ko waxee rek dañuy njëkkanteeg euh, jotaay bi ay du ñàkk ñu amaat yeneen jotaay bu bii weesoo. dañuy bàyyi sëñ euh, Omar Fall mu mottale seen mbébét nga xam ne góor gi jotalewul kàddu yi foofu mu eggale ko. buñ ci noppee ñuy jot micro bi njaboo dëkkandoo yi. ak ñenn ci soxnaa bi ak ñi nga xam ne bëgg nañoo seede. incha allah bi jërëjëf waaw bañ a waaw jërëjëf li ñu fiy dolli rek mooy xam nga ñoom di tax li nga wax sànq ni ndax seen ñaan ñoom ni ko yàlla daan defe ci nii ñi nga xam ne buñ ñaanee rek da ngay sentir ni yow ñaan gi nangu na mooy li si jiitu mooy maanu li si jëkka mooy du la faj bala ni jox ma dërëm du la laaj dara xam nga loolu rek dafa di lu rëy loo xam ne si faj kon am na lu du du xaalis bi rek moom moo leen jiitaloon faju léegi nag da nga ñëw ñu ni la da may jox nang cent mille jox ma deux cent mille moom yaay yaay xam lañ ko jox de waaye boo ko joxee nii lay nga bi rek def bu dee dërëm baax na bu dee ñaar dërëm baax na te it bu demet yàlla na ko moo doon maandu duñ luñ jiitaloon si ñoom ba pare am xam-xam boobu dañu ko jële fu ñu ko war a teg can li nga xam ne nag moom nga xam ne moom moom la ñu xore laaj bi moom li yokkuñu si dara li ko seen way jur joxe woon rek noonu la ko continuer du ko loolu moo indi barkeel bi di lekk lu di wax lu réew maandu mooy maandu loolu mooy maandu loolu moo moo jeexal lépp mm. ñu ngi ñu ngi leen di dolli gërëmaat nag bu baax ndax lii ngeen wax fekke ngeen sax bu ngeen ko fekkoon lamiñ yu gën a leer mm. kon dana leen wax li ngeen xam ne di ngeen gën a am njëriñ si côté euh, ndono geet mm. euh, sama classe gi yëpp euh, sorewuñu si waaye nag li mu wax la noo taxawu ñëw na ko ndax wuta xaalis <laughs> waaye nag am nañu si sëtam yi <laughs> ñoo xam ne incha allahu rabbi ñu ngi fi bu soobee yàlla ku fi ñëw lu mu lu mu lu mu jàngal na leen ko te daañu daa daa daan daañu comme ni nga ni nga war a faju incha allahu rabi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi toog ñëpp dëkkandoo yi lañu tey bu fekkoon di ngeen ko teeloon wax kër gi doo leen fi xaj bu ngeen dee ñëwati rek na ngeen nu ko teelaw a wax bu soobee yàlla nu préparé ko te jar na ko yàlla nag fi yàlla bàyyi ba nu tajawaat loolu ba pare loolu daal ci gàttal loolu rek laa fi doon doon li wasalaam bismillahi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu ndax ñu am kóllëre ni lu jafe ci adduna ji mooy kóllëre te it ñu am kóllëre ngeen ndax ba ngeen demee ba doon dara wala ngeen mën dara mënoon ngeen a fàttali démb fàttali ngeen doon defal démb waaye da ngeen a fàttaliku ne fii la ñu jaaroon fii la jaaroon fii la jaaroon waaye moom mii nga xam ne moo toog nii fi mu leen jaarale jaarale na fi ñu bari waaye ngeen am ñu bari moom ma laaj li xam laaj Omar Fall léegi ne ko xam-xam bi ndax nan la ñuy def gis nga ñoom ba ñuy am xam-xam dañoo am ndigal tarbiyewu seeni waajur ba ñu jox leen ndigal ci ñu di ko jëfe koo kee nga xam ne dafa am ndigal ci li muy jëfe nag lu mu jëf yàlla dina ko waaye koo koo xam ne kii bu doon loolu li mu jàng nii fii ñun ñëpp mën na la hmm. bari mën nañ waaye nag wax ko rek daa taxul nga sa saafara saafara ndax amoo ci ndigal hmm. ndax tarbiwoo woo kila ko jox ba nga jox ba ba nga am hmm. ñaanoo ki nga wax wala nga wut ci moom ndimbal ba nga am hmm. daga xëy rek doxee ci àll ba ba li naan xul oh, wallaahu ahad allahu samad lam yalid bismillahi rahmaani rahim nangam nangam hmm. du tax nga am ci dara du tax nga mën ci dara du tax loo ci ñaan mu nangu ndax suñu borom yi nga xam ne mooy maye bala laa may day fekk lii mu lay may nga sàkku ko ca it nga jaar ko fa nga war a dañoo jaaroon fa ñu war a jaar ndax jamono jii ñu toll gone yu baree baree bare bari toog ne saa ne woon na ma nàngam lu néew la ci gone yi ko man a wax ndax bu fekkente ne doo toog ak sa baay doo waxtaan ak sa baay doo laaj sa baay dara doo wax ak sa baay sa baay du la ne nangam tey bu ëllëgee doo mën ne sa baay dara danga toog ak ab jàmbur mu ne sa baay ne woon na nangam waaye yow doo ne sa baay sa baay ne woon na ma nangam mm-hmm. nag gone yi moom ñëpp a ko war a sàkku kenn ku ci nekk war nga góor góorlu fexe ba jege sa baay fexe ba am ma yërmandeem ci moom mm-hmm. fexe ba muy jox la loo xam ne lii alhamdulilahi rabbil alamin nam la koy joxee dana ko ànd ak waaye nag fi ci defee ne mën nga koo sàcc da ngay nax sa bopp kenn du am suñu borom li mu yor yëpp da koy jaay lu mu yor lu ne da koy jaay boo yorul njëg doo ko jënd hmm. te itam yëg njëg gi mooy ki nga xam ne yor na ko nga tarbiyewu ko ànd ak moom di koo kiwin ba mu ne la barab sàngam gone yi da nga daan dem ñu ne la demal gasali ma garabu xaas xam nga ko nga ne waaw mu ne boo gisee reen bi boo koy dagg ñi ngi koy daggee boo koy dagg naa ngi koy boo koy def ñi ngay def boo paree boo koy suul ñi mm-hmm. ñaari fan ñetti fan mu wala ne la nga wutali la ma la wutali woon keroog ñaata la mm-hmm. mu ne la ah, xaasew la woon nii laa ko daggee nii laa ko mu ne loolee boo ko defee nangam ak nangam lay jëm mm-hmm. loolee nag amatul tey kenn am amatu ko ci gone yëpp am ñëpp ci yem bu dee ci àll ba amatuñ ko bu dee fii ci dëkk bi amatuñ hmm. moo tax xam-xam bi wax dëgg yàlla bu ma fi mag ñi jógee dana wàññiku baax a baax a baax li ci ëpp nag mooy noonu ñu def rek jox ma ñaar ci junni li Omar Fall wax ma defal la nii ba bu ma la joxee lee nii jox ma juróomi junni bu bu antoo ma jox la fukki junni fekk juróomi junni yi dong la soxla woon waaye soxla wuñ ca leen moom mii nag lu mu leen defal defal na ko ñu bare bare koñ bii mu nekk nii ah ku mel saa yu ma jaaxle ci sama kër gii gan fekk ma fi boo xam ne gi dama ko war a yewi ci aw ma lu ma ko yewi hmm. fii laa koy fekk ne ko nangam laa soxla mu daal di làmb poosam mbaa bu fekkente ne dafa jaarul ko jóg mu dem bu dee lu mu jaar ko jóg mu dugg ci néegam génne ko teg ci sama loxo ma fàcc sama loxo ca du ne ma kañ koy ji du ne ma kañ koy indi saa yu ma neexee laa koy indi loolee nag defal na ko ñu baree baree bari ndax dafa fii ñëw sama mag ñëw bi mu ne ma bu fekkonte ne day euh, dese naa am doom bu góor danaa la ko tudd saa mag ñëw bi ma ànd ak moom ñëw bii nuyu ko ah kii de tudd na ma doom waaye keroog ba nga xam ne am caatam ñi koy maye daf ba ma ñëw ne ma la waroon na tudde doom tuddee ma doon lay bàyyi ko kon teraanga boo xam ne defal na li ko rek def na ko ci ay bokkam def na ko ci ay dëkkam ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk fan kenn dootu ko ñaanal fan bu gudd ndax fan bu gudd na ba noppi waaye nag dañuy ñaan yàlla mu yokk koo yokk yokk ndax yàlla kat ku dul doyal ku ne boo ko ñaanee mu may kon yàlla yàlla yokk fa nañu yàlla yàlla yokk wér gi koy ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngi ziar ñëpp ñu leen delloo ziar yaa baax nag mun weesu yaa baax góor gi barke sëriñ Touba kooku gën amut dëgg rek moo am ndax ñuy wax ñun ñii ci keppaaram lañu màggee man mi su ma ne ko góor gi mawlu papa mawlu sa mënoon bu ma wax papa parce que man sa sa mag la sa bàyyi lañ doon wax papa kenn gënu ko su boo gisee yenn saay ma fiy géej fu ñu waxee ay rongoñam sotteeku baax moom mun tawee su baax góor gi loo dund yàlla na yokk bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax kenn gënu la man nag ma ne wu ma wax mais bi bien mawlud kenn gënu ko góor gu baax a ngi nii but ba but grammaire ba grammaire gi wërgal képp kenn mënul taxaw ni bii Maodo moom def lii wala moom wax lii wala moom wax te lii muy nekk nag di si liggéey ñun ñi ba ñuy tuur tànk ba léegi loolu lañ ko xamee loolu lañ ko xamee moom nag yàlla na ko yàlla ful bu baax a baax mu gën jëm kanam allahumma amin man sama wax nag mu bari jërëjëf góor gi taw feex rek sa ma jóge waalo ñëw fii ah, waaw mm-hmm. ba yàlla dogal mu am fi yeneen soxna yu mu fi amee nu dëkk mm-hmm. man nag maay premier soxna bu mu jëlee waaloot indi ma fii mm-hmm. saboote wu ma benn yoon dafa ànd ak man xam ne rek tam laa nu nu ànd di liggéey dëgg ku liggéey denc uh-huh. ku liggéeyul dencu uh-huh. may liggéey moo liggéey noo liggéey moo liggéey ba yàlla dogal lii yëpp nu fi am yàlla dogal noo ko liggéey maa ngi ko gërëm nag di ko sant di ko ñaanal yàlla lépp lu mu am ci njabootam yal nañu barkeel barke sëriñ Babacar yal na barkeel yal na njabootam barkeel ah Omar man sama doomam mm-hmm. yaayam noo bokk yaay mm-hmm. maa ngi koo gërëm di ko sant mm-hmm. di ko ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla yéen ñi fi ñëw si barke sëriñ Babacar si maalo lépp li nga xam ne loolu la yàlla dogal na di ko def di ko dox di ko wax yër nañ njub yër nañ njub si barke yonent bi yër nañ njub si barke yonent bi jërë leen jëf jërëjëf kenn mënu leen fay ndax ba na fi nekkee ñun ñaar rek ba ñëwoon di dox mm-hmm. muy dem di liberté sis di ñëw maa togg fi añ mm-hmm. di ko jox xale yi ñëw yóbbu ko foofu dafa ne dajanu ko abal boobu juróomi baax lool xale yooyu baax lool yow dana gudd fan loolu la fi dëgg nga dañuy ñëw fi dajaboot fi yàlla boole na ñun ñëpp na dëkk keenoo bokk maam boobu sama maam sama di yëngu maa ngi leen maa ngi leen di ñaanal yàlla lépp lu yàlla dox si kàttanam ak yërmandeem waaw koo sant yàlla ma fi ma leen waaye xale yi waaw asubilaahi min seytaan rajim bisimilahi rahmaani gannaaw bi ñu sante yàlla julli si Muhammad sant suñu ñaari way jur ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant li si góor gi wax sànq fii rek ndax rek ngeen saxal wax dëgg yàlla ndax góor gi mu jógee Liberté 6 ak léegi ëpp na fukki at ngeen di ko topp di ko topp ba léegi si ba ñëw fii tey di ko def ay témoin yoo xam ni kenn mësu ko gis kon nag ñu leen di ñaanal yàlla rek yéen itam ngeen bëgg a yegg yeneen fa yàlla yeggale góor gi nag moom man mun ma wax sax si moom lu bare sama xol day tuuxi ndax ndax góor gi dafa laa biir ni mu téye njabootam la téye njaboot ji si mbitti képp ku fi mu ngi nit sax dafa feebar wax na yàlla waaye ku ñëw di fajuti sëtam bi nga xam ni moom la jàngal mu commencé ko nekk fi fan yi waaye ku ñëw mi ngi tëdd sa lal ba waaye damaa ko tëddal bàyyil kii mu dem ba benn yoon man ma bàyyi rek ma moccal ko da kay daay dugal si néeg bi jël siis dugal daal di moccal mu dem yoon kon nag faal njagal li nga fi a yegg yàlla na fa yàlla na yàlla bàyyi yow ba sa kanam man mun ma la dama lay bàyyi yàlla rek faal ndax xam nga ni lii ngay mocc boo si doon laaj fukki junne ñaar fukki junni kon noo nga sa troisième étage waaye ku ko war këram gi war xam ni lii muy faj laaju si dërëm laaju si fifteen lu ko waay jox baax na ku ko leen day dem yoon doo leen di kenn jox ma amul kuy ñëw fii muy waxaale ak yow amul musul am musuma ko fekkee boog man kon nag jërëjëf Fall yal na yàlla bàyyi bàyyi leen fi gërëm dëkkandoo yu baax ñëpp bu ñu fi ñëw bu mu fi ñëw xale bu tuuti lañu waaye mi ni tabaarkàlla sa macha allah dañu ko def comme bàyyi ji leen jur ñaanal ñëpp man daal man mu wax daal ñaanal naa ñëpp daal jàmm rek yàlla yàlla may ñu fekkee jàmm fekkee déwén ak déwénaat ci jéeg yàlla may ko wér gi gën a jafe yal na ko yàlla may mboolem jullit mbokk yéene yàlla guddal fanam lool bàyyi ko sunu kanam ba sa kanam a kanam ak mboolem jullit ñoo ngi rafetlu seen tawaay yi ñëpp fii nii ndax sama maam ji dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram moom moo ñu yar ñun ñëpp ñun na sët ñun sëtam dara lépp lu mu bëgg lépp luñ bëgg suba ba ngoon ñun moom moo gisee ak suñu maam ji moo ñu yar salaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp waaw Mawlud Fall moom wax si moom dina moom tiis trop parce que ba ma nekkee xale ba ma am deux ans laa fi ñëw xam nga mu yar ma namu dara franchement parler lu sët euh, nu ñu koy waxatee sax lu ma bëgg suba ba ngoon mi ngi ci franchement parler bëggul dara lu ma metti man mën naa sëtam yëpp man la ci gën a bëgg parce que lu mu lu lu mu bëgg a def man lay woo xam nga man lay wax mu wax ci moom yàlla ko fi yàlla bàyyi yàlla bàyyi fekkee lu njëriñ yàlla dafa sonn ñun trop sonn ñun.